commerçant yi am nañu ay jafeñ-jafeñ massa yaa ngi lakk maa ngi wu baax waa réseau du Louga ma Madieye Fall ñu ngi leen massawu ak waa massa Louga yépp ba léegi ministère du commerce tegu fa tànkam massawu leen bëkk démb la massa Kaolack lakk maa ngi bu baax Ibrahima Seck ak góor gi Diouf nga jiite marché ba lu mat juróom-ñeent fukki place lakk na fa bi fi may wax ak yéen ministère bi tegu fa tànkam waaye nag ñu ngi gërëm bu baax man Mansour Faye dégg naa yónnee na fa juróom fukki million bu jàppalee ko waa marché ba kon nu ko ci gërëm wolof Njaay nee na genn golo gudd na waaye lu ci laal borom yëg ko marché ambulant ñu ngi leen di yëkkati rek te duñ leen teg fenn te marché ambulant yooyu ngeen gis kat ci réew mi kenn ku nekk lépp loo xamante ne nii moom nga jaay suba ba ngoon nga yónnee ko ci horaire bi yónnee ko seen waa dëkk ñu dunde ko kon ñom lañuy dundé kon ku leen dimbali dimbali nga war réew mi marché yi tam ñu ngi leen di yëkkatee di leen dëgër pisé té duñu wax fuñu leen di yobbu nga di leen jaay doolé wan yalla rek am doolé bu dé ay mer la nañu xamni fi lañu fekk marché bi té buñu dem fi lañu koy bayyi kon nañuy waxtaan ak wa marché bi ñi ñaan nak président Macky Sall yow lañuy waxal nga dimbali ñu ci commerçant yi secteur infolbem bi nga xamante ne bii dañoo néew doole ñu dimbali leen ndax comme ni ko soxna Ami waxee léegi ci français bi am na ñoo xamante ne ñii cantine ba ñu nekk dañ koo loué moomuñu ko kër ga ñu dëkk dañ koo loué moomuñu ko te bu leen fàttali bi nga xamante ñi ñu ngi préparé pour tëj marché yi préfet Dakar daf na woo ñun asko dem laaj ñu suñuy xalaat daa bëggoon tëj marché bi yëpp ñu ne ko mënut a nekk. mu xam ne léegi comme nekk nag kon nii ñuy jaay ñii bañ a jaay mu metti lool ci suñ côté ku daan liggéey fanweeri fan ñu la fukki fan ak ñaar nga liggéey ci biir weer bi metti na. noo nga ñaan monsieur le président li Boun Abdallah Dionne waxoon ci conseil boobu mu defoon ni yéen membre gouvernement bi lépp looy te def na nga ci boole asko dem président noo nga lay ñaan modernisation dem marché yi. nañ ci les délégué de marché yi asko dem ndax la concerné suñuy njaboot ñoo fa nous di liggéey ñoo Nous ca cantine ya ñoo nekk ca taabal ya kon boog des gens di tas marché te duñ ko tabax te duñu ci bolé président no ngi lay ñaan na ko réel rapidement ñaan Sénégal suñu alal nekk fa suñu njaboot nekk fa nañu maire yi dénk ak état bi gestion marché bi nu koy seeree nga xamante ni maire bi lu demee recette am du ko fa jël la te lépp ñun ñoo koy seer suñu bopp lu déggoo ci aw yoon ñu teg ko ci aw yoon. président Macky Sall yow de def nga li la war waaye ñun suñu ministère du commerce defu li ko war ci commerçant yi rawatina secteur informel. defu liggéeyam bu sañ ñu saa suñu ko suba kay am ñu benn ministre bu xam liggéeyam.